ñu téye ko fa réglé wuñ ko ba biñ ma ko mayee ñu may ma ko mu jëg càng laaj ko tuddoon day yaay mu wax ma ko ma jox ko soxna soxna Baye Seydina soxnaam si mu amaloon ngaa xam ba Baye Seydina génne àddina ba tey sëyul malaaka yi wax ak moom ne ko ba yàgg ba tey sëyuloo soo sëyulee boo dee doo gis bàyyi laay te doo tàbbi àjjana ba mu xikkee mu di Seydi Thiaw Seydi Thiaw ma ko nettali booba mu ñëwuma yoof Seydi Thiaw ne ma ñëw mu jox ma can gi ma dem jox ko suma baay ñu def sëy bi ñaari fan lay tis ak ñetti fan mu génn àddina moom suma yaay sës ba armeel suma yaay sës ci moom fi si armeel mën naa la wax kaa yu dul jeex kaa yu bare bare kaa yu nekk fii du ñu sëy di toiletu rek di takki góom nga ak keteraan ak yàlla di defar yi fi xale te ko si ne sëy mu lànk bañ a sëy te bépp jigéen boo xam ne da nga gërëm bàyyi laay nga dee mayewuñ la doo gis bàyyi laay xam ne fu mu lu waaye doo ko gis <laughs> mm-hmm. mu ne mu ne nag kasaaka di ki noonu uusi mu ngay dénka dénkaane bi awlaadil xitaani nañu jongal doom yu góor ya doom yu jigéen ya ixtiaaril banaati saw ya ñu takkal leen ay sëy fil urumi fi ngénte la yowmal aqiqatu suba su ngénte ba fi udóori jamaa jaamiatan soog teewu mbooloo ma nañ la tafal sëy sëy boobu bu ñu ko takkee itam bu ñu demee ba màgg suñu buggantewul nañu tekki sëy ba bàyyi laay nee na woo maa bihi adu sayij fa nuktu la ñu joxante woon ba ñu fas sëy bu ñu ne sëy tas na nañu ko delloowaat jëkkër ji sëy bi soog a tas suñ ko defulee nag buñ ko mayee ëllëg jabari jàmbur la ñu may mu ne baabul masaajid buntu jàkka yee nag <clears throat> wal quraanu ak jàngaal quraan sil isami ba daa ji mag mu ne anal masaajid la nekk jàkka yi laa tadxul bu leen ci dugg mukk bi laa tuxurin ci lu àndul ak kasaaka ni ki noonu alquran bu alquran itam wala mas bu leen laal mukk bu ngeen laalee ah di ngeen am bàkkaar de kasaaka alquran wala mas maa sulumi ngeen ànd sobe di laal bàkkaar ngeen di am sobe bu mooy lan jàppuloo laal alquran yuusi mu ngay dénkaane bi saa ci lii kullu inin bépp a jamono li talaami si ñeel ay taalibeem wa xasitullaahi ànd ak ragal yàlla si jalaali kay boroomu màgg wal karamité ak tedd nga li annoo ni ki moom yàlla laa ilaha amul benn borom bu yooyoo ñu ko jaamu ñu ko jaamu ga am njëriñ dee dem àjjina lànk jaamu ga di lor ni ki dee dem safara ilaa woon rek yàlla laa ilaha amul beneen borom de kamaalun bu la aji mat budul moom laa sharika deetu bokkaale lahu di ko ñeel maa itam fa saraa i axan fi baa रखिर